dal leen ak jàmm cin laa ngay bax coolool laa ngi jóg waaye lay xeeñ neexut de neexul de ana lan moo xew fële ca TFM la fay suus jamono ji jaaxal na ñépp jàppal bàyyi la xëccoo gaag buuxante ga mu ngi mel ni tulleeg màlle gannaaw bi Amina Poté jëlee ay koketam dem bub su ne mes ña ca des ne mër ñu ne anakan mooy takkaat ay bagaasam buntu ba tëjoogul de ndax am na kuy yolleeku kooku kan la Pape Cheikh Diallo i waaw waaja dem na de dem na ñu ngi koy wër kenn xamul fu mu ne ginnaaw ba mu demee France ba léegi kenn déggatu ko fenn du ci télé bi du ci rajo bi lii moo jaaxal sénégalais yépp ñëpp ngi laaj waa ana Pape Cheikh Diallo fan la nekk yeewu leen bi ko téléspectateurs yi daan xaar saay su ne ci 6 heures du a na fa de animation ba daan def ca rajo ba kenn dégg nekkatu ko ca mel na ni Khady Ndiaye ñu gën koo xam ci biisu moom moo ko remplacé boobu la émission daanaka sax ca rajo King FM boobu Pape Cheikh Diallo sax kenn déggu ko fa ana waa ji fu mu nekk waay ak lan moo xew ba mu ne mes am na lu ñu ñi di ruumalaat nag loolu lan la mel na ni mbirum kalan moo xew ca GFM waaw wow gars yi dañoo paccoo mbir mi de ñii faree ci Bouba nduur ñee faree ci ñeneen te daa mel ni sax buuba nduur dafa yëkkati aba no stress teg ko ci kaw Pape Cheikh looloo naqari waa ba tax mu daal di gedd Abba No Stress dana nangu place u Pape Cheikh de lu ci mënti am daal daa mel ni jàngoroy xëccoo gi xew fépp ah TFM mucc ci de ku ci ne yaa ngi xool nooy daasee sa pàkk nooy rendee sa bëy ak naka ngay def ba gën a fës ña ca des nañ la féetee ginnaaw ñi fareeg buuba nduur nekk ci pëccëxoo ña ca des di tulleeg màlle lu ci mënti am daal sénégalais yi jaaxle nañ ci Pape Cheikh takk ay bagaasam ne mër ndax day ñëwaat am day gedd dem yoonam jar na samp laaj li wérte wóor daal mooy téléspectateurs yi namm nañ ko lool ba ñu ngi koy laajte rang naa na GFM nu mu taxawee ci mbir mi nag daa mel ni TFM moom mbir mi yëngalu ko ana lu waral loolu ndaxte ñoom de ba fii ñu toll nii ku fi nekk ku fi nekkul daa mel ni ñoo raw gàddu gi tiri boor ak ba ku dégg ci jëmale sa boor lu ci mënti am daal sénégalais yi samp nañ ab laaj ana Pape Cheikh Diallo fan la nekk nañ ñu ko lijjantil ndax day ñëwaat am day jaar fi bub si jaar mbaa ami Amina Poté jaar fa loolu yëpp ëlëb na nit ñi lu ci mënti am danañ ci ñëwaat ci ay leeral yu gën a wér jërë ngeen jëf